ba mu dëdd moom Sidi Lamine Niass yéen kay gi xëy tey yi dañu xam ne Sénégal dem na waaye amaana Sidi Lamine dem Sidi Lamine Niass dem na

bokk benn combat <laughs> waaye su dafa mel ni ñoom ñoo bokk benn destin yéen gi ci l'enquête xëy ci loolu la xëy fesal ji ngoog euh, le quotidien yéen gi di le quotidien ne Khalifa Sall yëkkati ci procédure judiciaire euh, euh, mhm. lu ni noonu la ko yéen gi di le quotidien xëy fesal ngoog critique présidentielle mu soxol présidentielle yi ñu war amal ni ki ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ci atum 2024 yéen kaay gi critique dafa sabar bu tas lay niru mm-hmm. li ko waral mooy gannaaw ba nga xam ne juróom-ñett fukki fan ak juróom-ñett fan moo des ci élection yi waaye gis nañ ne ba fii daal euh, président Macky ay jafe-jafe ngir xam kan moo ko war a wutu yéen a kaay ci la yi nga xam koy dund ci fichier électoral bi ak ay caution yi delloo seen i borom ba ci ay clé USB yoo xam ne nañu baaxul mm-hmm. euh, yéen a kaay gi daal ci loolu la xëy fesal tey ji Abdoulaye euh, laas la mu fësal yéen a kaay gii di laas ne acteur yi wooyu société civile te daje war waxtaan nañ seen dàll parce que li ñu mm-hmm. jublu way la nga xam moom la waxtaan woon ci assemblée nationale nañ ko jëfee euh, yéen kaay gi ci loolu nga xëy Fissel Abdoulaye ngoog euh, fës na ci l'info yéen kaay gi di l'info ne Penda Mbow Moussa Mbaye Mamadou Lamine ak ñeneen kenn ku ci ne joxe nga sa xalaat jëmale ko ci réew mi ne muy doxee jamono ji mm-hmm. ñu bari nag jàpp am jamono ji dafa wuute loolu ak la nga xam moom la ñu waxtaan woon ci assemblée nationale yi tax yéenekaay gii di l'info xëy tey ji daal di fësal seen i kaddu euh, Sud Quotidien professeur Babacar Gueye la dalal ci laaj ak dox ci digganteem ak suñu naatango ma ngay àddu jëmale ko ci dysfonctionnement yi nga xam ni wala ci lenn ci ay bank ña ngi xam ñu ngi ko nemee ci processus électoral bi moom dafa jàpp ne réew mi jamono ji li tax mu tàggateem mooy population seen jëm bopp mhm. ñoo dem ba gisatuñ seen bopp wala wóoltuñu acteur politique yi noonu la ko yéen euh, mhm. kaay gi ne élection yi daanaka ay fan yu néew moo ci des waaye fu mu mhm. ak fantasiro nemeeku nañ ko jamono ji ci biir euh, coalition Benno Bokk Yaakaar yéen kaay gi source ci loolu la xëy Fesal tey ji Abdoulaye euh, fexe ba jigéen ñi nekk ci banlieue bi mu mën seen bopp mënal seen bopp euh, état bu Sénégal daanaka daal jëmmal na foofee nga xam moo di ci diwaanu Guédiawaye ab infrastructure boo xam mi ngi toll si euh, juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett milliards suñu koppar. Mm-hmm. Euh, Amadou Ba nag moo ko doon inauguré noonu la ko yéen kii di la Soleil xëy fësale. yor yor bi lam ñu faram fàccee yor yor xëy dellusiwaat ba tey ci coow li nga xam ñu ngi koy nemmeeku ci budget bi mu soxal 2024 chiffre dëgg Eh, yéen kaay kon ci loolu la xëy Fissel Abdoulaye. donc euh, direct news kër gii du porte poste. bu doon na jafe-jafe bu daan bu doon demee daan fóon la bon daañu wax ne mu ngi ci sukkarat. Ah. yéen kaay gi ne neexul ba neexul waaye kër gi mu ngi dund ay jafe-jafe yoo xam ne foog natt rek weesu na ko yéen gi xooy dellu siwaat itam euh, fësal ci xëtam bu njëkk juróomi at yi mhm. euh, nekkee fii ci Dakar neexul ba neexul waaye jamono ji ab tong-tong gu jéggi daay moo ci am mhm. lu ci tolloog 8 millions waaye lu juróom-ñetti millions yu teg ñaari téeméer ak juróom benn fukki mètre carré déclassé nañ ko ci forêt classée bi mhm. ñetti junni ak juróomi téeméeri njaboot yoo xam ne ñu ngi doon xaar ñu jot si jotuñu si fu mu toll daal Abdoulaye Seydou Sow ak lenn ci ay cadres yi pare ci APR ñoom ñoo fa séddoo noonu la ko yéen kay ne dañ ko jël daal di koy jox a neexul ba neexul waaye moom dañ ci woote taxas genn wet noonu la ko yéen kay kii di la tribune xëy fesal 24 heures lam ñu Mbakil Faye moom la bàyyi la journée Cheikh Ahmadou Bamba Euh, ñaar fukk ak beneen édition bi ñu doon amal fële ca Grand Bassam ci Côte d'Ivoire. Mhm. Euh, Serigne Touba nag euh, maanaam la nga xam jot na koo def. ba la nga xam daanaka moo bonoon fële ci baab Gabon soppali ko doon lu baax. Mhm. noonu la ko yéene kaay gi di 24 heures ci loolu la xëy. fës ngoog stade moom. suñu gaynde wan seen taxawaay ci final manam ci weekend bi Bamba Dieng digal na Sima naka noonu. Mhm. mel daal weekend bi weekend suñu gaynde yi. ma ngoog suñu lamb. Ama Baldé ak Balla Gaye numéro